naka def waaw eh deful noonu nag jaajëf sa waa ji naka waa de yaa ngi am jàmm eh, waay man xamoon naan situation bi lu mu tar tar tar tar tar ci lijjantu ko rek ngay mujj yaay ndaa naan yaay ndaa naan yaay ndaa naan bàyyi bi ci jël bi kenn demul nga des yaay nda naan cëm <laughs> xamoon naa ni situation bi lu mu tar tar tar yaa koy mujjee réglé am na loo bëgg de bëgguma dara damaa xam ni ginnaaw ay jàmm te bàyyi sama waay nga té dama gis nga def affaire bu doy war sama xol sedd ci guuy fal fal fal man bu fekke wax jigen nga may wax. non ah. damaa woor ma nekk ma ci ci tiagaay ji nga ne. ay ngi ah. sa tiagaay gi nga nek la nekul on tal na leen jaamu yalla la dese jaamu yalla ba de ta xam ne leen nga de da nga de rek non man xam naa loolu mais yow bul yakar man jigen mo fi andi dooy affaire jigen wéru koor bi lan lay dooy jigen bay ñëw nga fi ndax jigen de. non kooku xam nga rek kii la quoi affaire bu ma bett la rek mu xaw a doy waar xam nga <laughs> mais wuy ma baay li nga def noonu la euh, euh, booy bi bi mu la joxee xaalis bi da nga koo denc te xam naa ne bi nga ko dencee xalaatoo ci ku dul man lii la xarit nag di jariñ bàyyi léegi xam nga lu mu bëgg téeméeri junni yi bu ma sàmba yëg bu ma démba yëg bu kenn yëg yow man sax mën naa laal deux cent mille pour onde yi mën nga ma ko jox yow nga jël tiri onde yi xam nga li ma la yow jox ma deux cent mille rek onde fefti sax garaawul boo ma joxee sa fanweeri junni ma jël ko yow nga jël trois cent cinquante mille ndax yaa ma soxla ah man benn soxla. man man man xaw ma da ngay gént yow booy bi joxu la junni pour pour paawu koñ bi. booy ban booy. booy kii booy bi ne sa kër booy booy kawman bi xaw ma anglais bi booy bi xaw ma français la yoo xaw ma Abdou. booy anglais Abdou man mu la jox 500. waay baay baay li nga wax waay baay yow ah, man la la wax man. yow la ma man naa la jaawal. eh déglu li ma la wax dama nga man la la wax man man la jox 500000 pour pas yéen yéen ñi. loolu la ma wax. man mi waaw. man ndax maa gis benn fréquentation pas. mais yow eh, eh. di xoolal man du ma sa morom te yi nga may nag bu ma yëkkatee dama lay nokk rek. non Baye da ngay génne moonin bi de. ban moonin. non da ngay génne moonin bi moom no moonin moom Baye da ko koy génne. ban moonin laay génne yow. doo génne moonin booy bi jox la téeméeri junni doo ma jox toon de. naa jox dara ba ma koy génne ah. waaye booy bi du waxantu Baye te yow yaa ma non Baye damay dëgg rek. Eh, eh, eh, xoolal yow yaa ngi maam te bu ma di wax dégg ma la wax fu man du neex de. Baye billahi di nga génne téeméeri junni yi. du ma ko bàyyi noonu. kon doo laal dara waaw baax na. waaw léegi doo laal dara na du ma laal dara baax na non wax rek dama lay wax rek man xaalis da nga koy génne de. doo laal dërëm yow doo laal dërëm. wax ju bari nga fi nekkee nga yéen doo ko xool yi ma ci tabax yi fii tabax yan ñëwal kaay yan tabax non bàyyi tey moom il faut ñu laale lu leer laale da nga bëgg ñu xeex tey billahi tey mënu wax ba duñu laale da nga bëgg ñu xeex ñëwal fekk ma ci tabax yi xoola jàppal ni tant que maa ngi gën a toog di soulager wu di kuul nii jàppal ni mën naa la noq yow kay ragal kan may ragal kay fekk ma ci tabax yi bàyyi dimbali ma ngir yàlla ñëwal ma ñëw ci tabax yi sa ram ngir yàlla bàyyi ñëwal fekk ma ci tabax yi ah ñëwal ñëwal bàyyi ma ñëw tabaxi xaaral ma simeeku taxawal ah, ah da ngay bàyyi wax ji ma simeeku waaw comme yow da bu dina ñi ah, ñi bëgg laa xam balay atte kay kay bay yow je te tué yow dama lay rey dama lay massacré yow. kay ñëwal ñëwal ah, ah kay fi foofu dafa jege sa gàlle kay fi kay fi tànn ñu ne. Ah, waaw yow da ngay génne téeméer junni ah, ah da ngay buuju kaw ah kay da ngay buuju kaw ah da ngay buuju kaw kay. Mbale Mbale. birig bi rek ah daaw daawer bi wuu daawer bi daawer bi wuu wuu. waaw man attanu ma birig bi wala li ma war a def.